<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi bëggee ci leen ziar leen euh, xëri la sëtu kocc bi wax dëgg yàlla man na kànja man na maafe ci wa jaayiran ak wa baati man gars yi ku corriger sa bopp ku sa bopp sama ngañ na leen def ak coono naka talaxlax réew mi rakkam rakkam jeeg jayi jayi bàyyi sonko ji ci wa iran ak wa baati man ku corriger yaa xam gaay yi ginnaaw bi suñu président bu ñaawul ba bay basiru jomay jaaxar fay doomu nday bay Sonko ja defé ab discoursam ci fer pelé di xaar na ku corriger mune la ya xam ginaaw bi discours bi jallé dama ci bëggoon indi ay quelques léral man xëri kocc bi wax deug yalla man na kanja man na mafé félicitations encore une fois euh, wax deug yalla les les protecteurs du projet <laughs> <laughs> ma ne ko ci félicitations à tous les influenceurs du Sénégal ku corriger sa bopp wax dëgg yàlla grand théâtre démb curux curuxi na ci fer pele waxtaan nañ fa waxtaan wu am solo wax dëgg yàlla rafet na ci wa jaayiran ak wa baati man kon yéen influenceurs yi nga xam ne yéen nekk ci réew mi maanaam les protecteurs ak les protectrices du projet <laughs> dëgg yàlla xëriñ leen ni jaajëfal félicitations aussi à toutes les fans wax deug yalla légui nak gaay yi damaa bëgg ñu waxtaan ak Iran Bassirou jomay jaxar fay ci wa iran ak wa batiman ku corriger nak sa bop wa ku corriger sama ngagne voilà légui nak encore une fois tàmm ngeen ma commencé wax ngeen jël bic di corriger te ku corriger ya xam légui gaay yi dama bëgg waxtaan ak bay Bassirou jomay jaxar fay borom ñoo jor ma ci borom ñoo jor a retour de parquet amatul ma ko ci Baye basir retour de parquet amatul na dem ak coono Baye basir am nga jamm xëri la sa tub kocc bi mbaa kenn yabu la léegi Baye basir nga ne ginnaaw euh, bi nga toogee ci bop réew mi euh, xam nga nag da ngay ni déglu nak man bokkuma Sen TV man dañ ma invité won palais dama demoon bokon ci les les journalistes nga xamante ñom lañ sélectionné won ci faire pelé ku nu sélectionné wul nak sa bop ah man de sélectionné nan ba tax na li ma question yi ma posé Baye Bassirou ci biir euh, euh, jàkkaarloo bi mu doon jàkkaarloo ak waa presse bi man xëri maa ngi doog a dawal sama euh, vidéo damay bàyyi ba seen yëpp publier ma soog a publier parce que man samay question dafa xawoon a pertinent c'est un grand journaliste man bokkuma ak ay ay Ndeye Fatou Sène TV bokku man bokkuma ak Kader de ah ku kuréel yaa xam man du ma Kader Kader du man.

de émission mu war a jàkkaarloog a presse bi nga laaj ko mu naan la du ma ko def du ma ko def du ko def wala mu naan la loolu moom du ma ci wax loolu du ma ci wax du ma loolu bi Macky ni mu ci sonalee journalistes yi boo ne ko wey président troisième mandat bi loolu du ma ci wax loolu moom booy du ma ci waax ndax xamoon na ne day dem <laughs> waaw léegi Baye Bassirou Diomaye Faye nous vous écoutons ginnaaw bi nga jëlee réew mi Baye Bassirou Diomaye fay xëri la satub kocc bi ma première question est Manam nan nga gisé taxawayu rew mi bi nga jëlé rew ba paré bima ñëwé bi nga ñëwé fan nak ah nga ñëwé fan. avant may prêter serment. ah avant ngay jàkkaarloog bay Ali sen ok légui première chose bima def bob ma ngi hôtel Azalay. yoy lo def hôtel ban xaar lo lek ay dikun <laughs> wa côté yoy la wa après hôtel Azalay. ma commencé saytu ba xam ndax rew mi may jël. li ay stock de sécurité. stock de sécurité manam ci walu lek <laughs> ah lu ma bëgg. waaw ci wàllu lekk. ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmm fan lañ ci toll. ok monsieur le président. léegi bi nga jëlee réew mi euh, monsieur le président lan ak lan moo nekkoon di jàmp moment boobu ba nga accéléré yëf yi pour maanaam mise en jour réew mi réew mi mën a nekk en jour ci faire pele ay ku corriger sa bopp président euh, nan nga def ba génn ci situation boobu. buñ ci bàyyi woon xel xëy na mënoon nañu avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement. xanaa ni nga wutoo bàyyi Aly Sène daa neexul am li nga fi fekk moom moo doy waar rek. ci wax dëgg yàlla doyoon na waar. ci wàllu woowu doyoon na waar mais doy waar naka comme lan ak lan moo doy waar. que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wa wax dëgg yàlla doyoon na waar. doyoon na waar waaye nag daa mel ni yow sa bopp man ni ma la gisee doyoon na waar waaye da ngaa toog rek commencé woote ba bàyyi bàyyi Bachirou bàyyi Bachirou yow da ngaa teel defee appel yow avant ngaa prêter serment yow yaa ngi woote yow. bi kaa bi critiqué kan nga njëkk a woo. DG Sarr bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom. ak kan. ak kan. woo directeur du commerce intérieur. ak kan am jeex na. woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget. ok ancien ministre du budget woo ñeneen ak ñeneen pour xam nga mise à jour réew mi ci faire paire ku corriger sa bopp. waa FMI aussi dafa mel ni toog ngeen. toog ak waa FMI. non kon situation bi critique woon na de bàyyi président non critique woon na nag. xaw na doy waar trop trop trop trop pour dire la moins. Euh, mais avec le président encore une fois les sénégalais euh, dañuy féliciter Bougane Dani. Dany parce que Baye Bougane bi mu jàppee ci courant pour mi wax dëgg ba <laughs> rek courant coupé. <laughs> ah Bougane a bari sawara ma ko ci Bougane a bari sawara. Yalla motalina suñu ah way Bougane félicitations félicitations, way barké yow mal basar Félicitations Bougane Dani. sa mani bay Bassirou jomay fay bi mu ñëwee ci réew mi courant bi da amone problème bay Macky Sall taxat taxaté réew mi ndax lan bu bay Bassirou jomay fay diké tok 2 jours rek courant bi commencé couper mais nak biñu gisé gisee gey dani euh wax deug yalla mu participer ci courant réew mi ndax bu leen fàtte ne Bougane Bougane gey dani xol bi da bari sawara wax deug yalla bogan gey dani, félicitations ndax waxon nga ko wax deug yalla neewoon nga sa xol bi la ci sawara xajul ci réew mi wax wax ju leer. kon sa yene wax deug yalla bay bugaan euh, mat na de. yalla motali na suñu yéene. allahu akbar kee bari sawara de senegal est-ce xam ngeen ni li tax courant coupé ci rew mi ba nii maanaam secteur ci xol bugan be ci leen branché prise motax manam courant manke wul ci rew mi kon félicitation bugan wax deug yalla sa xol bari na sawara. dama wax wax ju leer. taxaw na ni wax deug yalla xolam bi sawara ji ci nekk xajul ci réew mi bu Sénégal bëggee sax mën na leen a may courant wax dëgg yàlla saar wa demoon delsi na encore une fois Bougane Gueye Dany félicitation dama wax wax ju leer ndax moom Bougane géey Dany toog na wax sénégalais yi ni maanaam man sama xol bi est divise est divisé en deux camps ndax benn wàll wi ci biir xolu Bougane bi waa Qatar ak waa Russie ñoo fa féete eh dafa leer Bougane Gueye waxoon na lii dem leen ngeen xool vidéo xam nga am na wax joo xam ne waxum biir la. te waxum biir dégg lay laaj. wax joo xam ne waxum junj la. te waxum junju maam koccu nee na. bu yeggee dof ko moom. ndax bu ngeen xoolee ci biir xolu Bougane bi moom Bougane moo taxaw ni maanaam ma cœur à été divisé en deux. en deux camps. kon wàll wi nga xam ni moo lu l'ouest waa Qatar ak waa Russie ñoo fa féete. moom Bougane mooy wax ci courant bi ci xol bi maanaam safara bi ci xol bi moom Bougane insister ni sénégalais yi yéen bu ngeen bëggee beneen wàll wi. ma leen beneen wàll bi. mën naa leen cee jox courant ci fair-play Sénégal ngeen di consommer sama xol bi courant te du ngeen am problème mu courant lii la euh, euh, ko Bougane Gueye euh, kii waxtaan ak Baye Bassirou Diomaye fay ba tax na yéen ñii saboote Bougane Gueye sant leen yàlla ku fi xëy taal bu baay Baye Bougane xol bi daa bari sawara moo nu jox courant. félicitations Baye Bougar. non kenn du ko <laughs> man ma xamni ngay ponkal yow Bougane ngay ponkal yow sa xol bi la ci sawara da xat ci réew mi dama ne la wa Qatar xolu bi ci ben wall bi. wa Qatar ak wa Russie ño fa fété wa Qatar ko Bougane ne jox courant kon Sénégal yeen bu len Bougane ne man na li a jox courant du gën ko gëm. loolu dara jogu ci de. du dara du ci jog loolu dara du ci deñ wax deug yalla jambar non ken du ko non kenn da koo mën a weddi ku ko weddi waaye ku ko weddi man maa ñuus ba ngaay ku ko weddi yow sa xol bi la ciy sawara li ma gën neex ci bugaan bi gaz manqué ci réew mi café seddatul moom ah bu leen fàtte ni xol bi centrale électrique la mais ci côté bi côté bi côté bajoor yi côté boobu noonu daa am gaz lobb café seddatul ci mim réew félicitation bugaan encore une fois barke yow mal kenn du ko weddi lii yaa ko def ci réew mi lii. dem leen ngeen way ku ko nag ko ñime weddi <laughs> ku ko weddi xam dama ni ko ku ko weddi xam ku ko weddi xam gaay yi euh, pour expliquer len rek yeen sénégalais yi ngeen xam bugan moy kan parce que bugan du n'importe qui ci réew mi bugaan xol bi ay milliards et milliards et milliards et milliards ampères la dama ni la Qatar ak liko wër France manam pays européen yi ku ci xey di taalub lamp day sante bugan gey dani ndax xol be bari sawara xol bi da tang ñun Senegal, Bugan wax deug yalla li tax courant coupé wul ba ni bugaana ndax xol bi wax deug yalla ci lan branché kon sante yalla encore une fois buga bay Bugan gey dani deug yalla deug yalla sante yalla parce que jambar nga nak li nga def ci rew mi kenn du ko wedd wax deug yalla rew mu toll ni Sénégal ak rew mu toll ni Qatar bay Bugan gey xey di len rabitaaye courant ni ci gratuite ku sa bop barki yow man xuloo basar pam gu new gaa yi déglu discours le président de la république euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngeen xam ni pomme du new encore une fois gaa Bassirou Diomaye Diakhar Faye alliance Baye Sonko sont les meilleurs présidents de la république de l' Afrique ku corriger sa bopp barke yow mal xuloo jil basar gis ngeen Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu jëlee réew mii di Sénégal fi mu ko fekk Baye Mackey, kacapan ma ne ko ci Baye Makkey <laughs> waay Baye Mackey, Baye Mackey, du dara barke Rasulaay Baye Mackey, yaay big fëtër bàyyi màkk yaay sippax yaay mbóot yaay gunóor <laughs> xoolal bi Bassirou Diomaye Faye jëlee réew mi avant Bassirou Diomaye Diakhar Faye def prêter serment man loolu njortoon naa ko nag man noo xamoon naa ne sabotage dina ci am bàyyi Macky Sall xoolal da doon saboté dossiers yi di signé ay contrat def lu ko neex ba bato yi nga xam ne ñoo doon rabita ay centralu bugaan bi ci xol bi bato ba ñëwatul wax dëgg yàlla. aj lépp nga xamné Bassirou Diomaye Diakhar Faye dik tok 2 mois 3 du ko mat sax 15 jours 15 jours lay tok courant bi commencé ci rox ndox mi manké ñu ni waaw il n'est pas compétent mais alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son excellence bàyyi premier ministre ku corriger sa bop man ñaari président la am non day leer de yeen nak yeen ñi nga xamné ben président am ngeen am ak ben ministre sen bop yéen xam man ñaari président la am son excellence Baye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son excellence Baye Sonko ku corriger sa bopp man ñaari président laa am parce que nag campagne ba mu dee campagne ci réew mi ba tey 1960 à nos jours man xërisatu kocc bi kese képp dong maa fi dem élection yóbbu benn président gagné am ñaari président ku corriger sa bopp. élection promotion fii la am sunum réew Sénégal ku corriger sa bopp barki yow mal xuloo jël basar kon gars yi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Baye Sonko mu sell mi gis nga félicitation encore une fois gars yi gars yi nañu bàyyi xel ni réew mi barke alxuraan ñi ngi doog a am président ku kurise yaa xam non Sénégal mi ngi doog a am président xoolal sabotage bi nga xam ni Macky Sall moom la def di xaar Bassirou Diomaye nga xam naa naan booy yi booy yi booy yi booy yee la gën a xam état non moo yow Macky yow moo xam-xam yow kon foofu na foofu nga doon saboté su gouvernement ay signé ay accord ay faux accord ñu ñàkk fayda ah saboté bato bi nga xam ne courant bi day coupé ah signé yenn contrat yi ci hôpitaux yi pour en renforcer budget bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye moom lay génn par mois di ko fay doomu adama yi ah. xam naa danaa noonu yi bu ma ko defee boy amuñu xam-xam bi amuñu xam-xamu génn situation bii bàyyi Bassirou Diomaye Faye dikk tëb miir xam naa bàyyi Sonko ko jàngal tëb miir nag bàyyi Sonko moo lu bàyyi Macky Sall laal bàyyi Sonko ni ko luppee kon gars yi encore une fois yokku cere dolli ñeex barki yow mal xuloo jël basar te lax-laxi réew meeg dajj dajj bàyyi jomaay ji ak bàyyi Sonko ku nu doxat ñu day la doxal leen ba kenn laal leen mën a xëri si kocc bi je suis en assurance courant bi doy na bàyyi buggaan li may jox ci courant doy na réew maa ngi curux curuxi doxal leen de ba kenn laal leen ma yoo toog su ko ma ni ko ci ba kenn laal leen ma yoo toog su ko ni réew mi barki yow mal xuloo jël basar keneen ku jëloon ci keneen ku jëloon réew mi di nga tombe ci piège u Macky Sall bi ñetti fan ngay toog courant bi commencé dem dund gi yokku ndox mi seey ñu naan waaw Bassirou Diomaye Faye n'est pas compétent mais alors que maanaam Bassirou Diomaye fay du ma ni fils de état la mais nag yàgg na ci état nag yàgg na ci état parce que yàgg ci état du doon ministre wala doon président déedéet yàgg ci état am xam-xam ci gouvernement du doon ministre wala doon président déedéet président ndombal tànk la yàlla mooy xool ku ko neex mu dénk ko ko mais xam-xam dañ koy wut mhm. ci fair play xam-xam dana koy wut dama ni juddu wu rëy ndey ak baay sama maam kocc loolu la indi foofu waaye fulla ak fayda boroom ku corriger sa bopp ba beneen <laughs>